mën nga faa dugg dañuy laaj seen supérieur yi kat kon jàpp naa ne sénégalais yi lii buñ ko nangoo moo ñu nangu président Ousmane Sonko dem kaso moo yam kon nag waruñoo xaar pour ñu dugal Ousmane Sonko kaso ñu dara wax ndax lii moo kaso ñoo yam léegi nag ci genre situation yi réaction bi dafa war a spontané du looy toog rek naan dañuy xaar ba kenn daan ko wala jàpp ko ñu soog a jóg te ku ne xam ne ni xeex kenn du ko ci benn fan xeex organisation la fi nak la coordination parti bi di Pastef ak yene ci responsable yi wara jël seen responsabilité té wañi calcul yi calcul suma défé li dañ may tëj kasso ci nguru Macky Sall def ak def dañ lay rawati rawatina bo bokkee Pastef Basiru Jomay Fay mi ngi ni deful dara dem gi kasso jamono ji ñu wax ak yeen légui nak man suma xamé lolu en tant que responsable parti bi mën nga sax bañu fess ci combat bi liñ la sant boo yaa ci koñ pare pour xeex mais amuñu essence amuñu moyen wu jënd yenn jumtukaay yi gisuñu kuy wax ñoom. léegi au lieu que nekk naan dañuy organiser ay réunion comme li coordination yu bari doon def bee passé ku ne di génne communiqué naan nañu daje bërëb sàngam dañuy waxtaan su ko defee gars yi identifier leen di leen jàpp benn par benn communication de bouche à oreille ngay def. génne xaalis bi doon servir ay débat daal organiser ay rencontre wala di ci financer yenn activité parti bi dugal ko ci xeex bi boo jàkkaarloog nguur goo xam ni dafa pare pour lépp yow it pareel pour lépp jëlal loo am def ci moo xam conséquences yi lu mun a doon tey problème bi am dëgg-dëgg ci yenn quartier yi mooy jeunes yi pare nañ pour xeex mais gisuñu leader wala njiit bu leen teg ci yoon ay benn benn responsable ñoo koy def jarul ñuy tudd seen tur pour di leen exposer mais ci quartier yu bari ñi ci gëna farlu ci xeex bi di encadrer jeunes yi ci localité yi mooy ñi nga xam ne amuñu responsabilité biir pastef amuñu ndombo tànk mosuñoo sax teg bët Ousmane Sonko ni mu jarale ñooñu nag lu ko raw la war a jaral yenn responsable yi nga xam ne ñii ay maire lañ ñii ay député lañ ba conseiller lu ñu doon gannaaw yàlla ak peuple sénégalais bi ci loxoy Ousmane Sonko la jaar kon waru len gëna goré gore ndax chaque jour Ousmane Sonko protégé len sa yu yi commencé dal sen kaw nit boy and ak moom rawatina mu sacrifier leppam chaque jour mu lay jëma a protégé ko war gëna bëgg yëf yi ko war gëna bëgg bopam wax nañ ko ci suñu jël ben vidéo ku yaakar ni Macky Sall bo mi lim bëgg ci Ousmane Sonko muy daan ko ba nopi te ko kaso fa la yëm c'est parce que yow xamou li xew déglu leen Antoine Diome ci intervention bi mu def bërki démb ci gis nañ nag ni leaderu Pastef fan yi weesu ci ginnaaw dafa wax ni dafay jóge Ziguinchor ñëw ba Ndakaaru te ñëw boobu muy jóge Ziguinchor ba Ndakaaru nee na dafa am ay euh, escale yu muy def wala dafa am ay rassemblement yoo xam ni dina ko def jagle ko ay bërëb état jël ay responsabilité am jël ko yóbbu ko këram bi ñu koy jël nag fekk nañ ko mu ànd ak ay nit te nit yooyu gis nañ ay ngànnaay yu nekkoon ci biir oto bi am na ngannaay boo xamante ni moom moo ko moom amaana mais am na beneen ngannaay boo xamante di procureur bi nekk ci gox boobu dina ko gëstu ngir xool fan la ngannaay boobu jógee ak li ci war yëpp ñu def ko gis nañ fa tamit lance pierre ak ay bii ci biir oto bi ak yeneen xeetu euh, euh, instrument yoo xamante ni loolu yëpp euh, kii tribunal moom mooy kii koy leeral ak wax li ci war am ak li ci war warta am fii dégg-dégg biñ ci war a bu waa nguur gi réussiré ba teg loxo Ousmane Sonko daan ko ba dootul mën a doon candidat beneen dossier la ñuy ubbiwaat muy waa Pastef dañoo am projet wu créer rébellion ci réew mi maanaam wàllum terrorisme parti bi la ñuy jéem a tas ba keneen ku dul Ousmane Sonko sax doo am possibilité naan da ngay doon candidat wu parti bi pour 2024. kon yenn ci responsable yi nañu xam ne ñoom seen carrière politique mi ngi dépendre ci avenir Ousmane Sonko ak ni Macky Sall di def ak moom.